Monsieur le Président du réseau des acteurs des collectivités territoriales pour l'économie sociale et solidaire au Sénégal, RAPTES, Madame la Présidente de l'Association des femmes de l'Afrique de l'Ouest, AFAO, ma chère Khadija Faltal, honorables députés, hauts conseillers et membres du Conseil économique, social et environnemental, Monsieur le maire de la commune de Ngor, Messieurs les chefs coutumiers et traditionnels, chers pères, Mesdames et Messieurs les partenaires techniques et financiers, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, directeurs nationaux, chefs de service et coordonnateurs, mesdames et messieurs, acteurs de l'économie sociale et solidaire, chers amis de la presse, mesdames et messieurs, distingués invités. Nous sommes réunis ce jour au terme d'une série de visites de travail qui nous a conduits, mes équipes et moi, dans le pays profond, au cœur des terroirs et au contact des populations de Ziguinchor, Sejou, Kolda, Tambacounda, Goudiri, Kidira, Kédougou et auprès de celles et ceux qui font l'économie réelle L'étape de Dakar, à travers ce forum que j'ai voulu inclusif et participatif, avec la présence d'acteurs de l'ESS, jeunes et femmes réunis, constituera aussi un moment fort d'échange et de partage sur l'économie sociale et solidaire comme vecteur de l'inclusion socio-économique dans les terroirs. Ce secteur polarise la moitié des effectifs de notre pays et peut contribuer, constituer un véritable accélérateur de croissance. C'est pourquoi le président de la République, son Excellence Macky visionnaire et empreint d'humanisme, on a fait la seconde initiative de ce présent quinquennat. Une telle consécration marque la détermination du chef de l'État à promouvoir et à développer le secteur de l'ESS, véritable gisement d'opportunités et lieu d'expression d'une forte créativité. C'est le lieu de magnifier les mesures hardies du président de la République, son Excellence Macky

fortement du reste atténuée sous nos cieux, nous recommande de développer des capacités de transformation locale de nos productions en faisant des acteurs de l'ESS le terreau de l'entrepreneuriat domestique d'où devront germer les champions de demain. C'est le sens de l'initiative PSE, économie sociale et solidaire, qui vise à libérer tous les talents des jeunes et des femmes et de doper le potentiel de l'entrepreneuriat social et solidaire afin de l'ancrer dans la société collaborative. À ce propos, l'entrepreneuriat social et solidaire sera l'un des, moteurs du développement inclusif, pourvoyeur d'emplois et l'assurance de revenus décents à des centaines de milliers de nos compatriotes, femmes et jeunes actifs, les acteurs de l'économie populaire. Cette forme d'entreprendre illustre parfaitement la volonté affirmée du chef de l'État, son Excellence Macky de bâtir sous la conduite du Premier ministre Amadouba et de son gouvernement le Sénégal de tous, le Sénégal pour tous. Mesdames et messieurs, tout au long de ma visite dans les terroirs, ma conviction s'est nourrie davantage du lien indéfectible, de la certitude que l'économie sociale et solidaire est le modèle de développement qu'il nous faut nous autres Sénégalais, puisque c'est ce que nous savons faire et c'est ce que nous devons faire. Je le savais déjà, je l'ai redécouvert et approché encore de plus près pendant tous ces jours en compagnie des braves femmes et jeunes du Sénégal, des forêts et des savanes, qui sont dans le temps de l'action et du développement, de l'entrepreneuriat, de l'autonomisation individuelle et collective, de la solidarité et du partage. Mesdames et messieurs, c'est encore ma conviction que la lutte contre le sous-emploi, l'exclusion, l'exode rural et l'immigration irrégulière se gagnera lorsque l'économie sociale et solidaire servira de cadre d'inspiration, d'orientation et d'impulsion des politiques de développement. Il en est ainsi parce que ce secteur est porteur de développement durable, harmonieux et intégral. C'est pourquoi je veux donner l'assurance aux acteurs de l'ESS de l'engagement de l'État de les accompagner et de les soutenir davantage dans leur dynamique de structuration, d'organisation et de développement. La loi d'orientation relative à l'économie sociale et solidaire, qui sera revisitée et passée au peigne fin par les éminents panélistes ici présents, constitue entre autres la réponse de l'État de faire de l'ESS le fer de lance des politiques de développement. Sur ce, je déclare ouvert le forum consacré à l'économie sociale et solidaire sous le thème Économie sociale et solidaire, vecteur d'inclusion socio-économique du terroir. Je vous remercie de votre aimable attention. xanaa embrayer rek ci euh, li troupe bi wax léegi góor ak jigéen joxante loxo ngir suqali koom-koom je pense que loolu dafay baax ñu taxaw si ci économie sociale et solidaire loi d'orientation bi euh, elle a été euh, adoptée loi d'orientation bi adopté nañ ko président de la république yóbbu nañ ko assemblée assemblée adopté na ko décret d'application bi président signé na ko léegi dañu nekk ci opérationnalisation lu tax tey ñu toog jël quinzaine bi fësal ko c'est d'abord montrer le portage institutionnel acteurs yi wax nañ ko euh, tey bu ñuy wax waxu économie sociale et solidaire xëy na terme bi ñu ngi koy wax ci dëkk yu bari waaye yaakaar naa ne ñu bari dañu war a ñëw si ñun yàng ko ndax dafa nekk ci suñu réew noonu la ñu yàgg fonctionner acteurs yi ku wër Sénégal gis ni loolu daf fi yàgg léegi lan moo fi xaw a bees lan moo bees ci euh, avec la loi dinañ ci del duma ci xuus bu bari parce que panélistes yi dinañ ci gën a wax mais engagement bi ma fi mën a wax tey mooy dañu ne naam microfinance am na ñu ngi doon joxe di jàppale jigéen yi di jàppale góor yi di jàppale ndaw yi mais tey est-ce que du ñu gën a taxaw bu ñu bëggee développer terroir yi ñu xool naka la ñuy gën a accompagner structurer euh, même dans l'approche chaîne de valeur bu ko defee bu ñu indee financement bu doon dërëm yaakaar naa ni dina gën a mën a am impact ndax mënoo xëy ne da jàppale kenn par kenn waaye boo organiser en amont boo ci taxawee mbaa nga xëcc en bout de chaîne dina irradier ñi nekk ci chaîne bi yépp ñu ne loolu dinañ ci gën a taxaw dinañu gën a taxaw tam ci développer synergie yi am parce que intervention yi bari na euh, faw ñu nit ñun au niveau de l'État toutes tous les instruments de l'État ñu lëkkaloo ndax lu ñuy liggéey suñu intervention gën a mën a am impact li ñu xalaat yépp ñu tënk ko au niveau du ministère mais dañu ne booy defaral ñi te laajoo ko avion boo ko indee mën na ko rejeter moo tax ñu ne xaaral ñu génn ñu génn de wër Sénégal ñu génn rencontrer acteur yi néew ñu ñëpp la ñu de waaye yaakaar naa ni li liñ ci gis sa nous a permis de tâter le pouls du terrain ça nous a permis de am température bi te fépp fu ñu dem balaa ñoo ŋaan acteurs yi dañ ñuy ne jàppale leen ñu ñu organiser jàppale leen ñu ñu gën a am doole financement yu ndaw ndaw am na fu mu am njëriñ munu ci ñàkk waaye ñun tey li ñu gën a soxla femmes yi jeunes yi nee nañu ñenn ñi nee nañ ñun am nañu Fra waaye bu ñu amee Fra te mënuñoo feesal conteneur fu ñu jëm donc fow ñu taxaw eh, waaxu baax na mais nañu taxaw tuuti rek bu ñu defee fondation yu dëgër yi yaakaar naa ni comme on dit quand on le train sur les la ca des accélération bi dafay gaaw te dina gaaw parce que dañu fekk ay acteurs yi nga xamante ni ñun ba ñuy judd ba tey maa ngi koy wax sànq y a des images y a des y yi nga xamante ne dañu yàgg nekk ci terrain bi ñu def si nag ay jéego yu am solo mais ñun tey bu ñu ñëwee lan la ñu war a def lu dul fekk ñoom fi ñu yegg ñu jéem ko gën a pousse gën a pousse nag yaakaar naa ne du nekk ñu continuer di def nañ fi yàggee def il faut un changement de paradigme qui nous permette d'accélérer d'aller très vite et c'est dans ce sens que je tends la main à tous les acteurs parce que fi ñu bëgg yegg ministère bi mënu fa yegg fi ñu bëgg yegg président de la république bu newee mooy deuxième initiative am wax na ko xam na impact euh, économie sociale et solidaire waaye pour ñu mën a atteindre suñu ay objectifs ñun ñëpp ci jàpp jàppante main dans la main ñu liggéey ko parce que dañ ko soxla parce que acteurs yaa ngi sur le terrain parce que bu ñu taxawee du financement mooy suñu problème du ressource toog cible bi ñoo ko bokk objectif bi ñoo ko bokk bu ñu toogee ci Sion dañ koy xàlli dem parce que mën nañ ko yàgg ngeen ko jëfee te le portage mu ngi fi te dinañ ko matal sëkk sëkk sëkk nan ngi leen di sant di leen gërëm